nga delluwaat jàmm àggaat ci jàmm bañ am benn gàllankoor fekkaat fa sa njaboot wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh